ngi leen ne weer yi ñu nekk mu weeru saabaan mu ngi nekk ci tàggoo di waaj a jeex ñu jëm ci weer yi nga xam ne mooy xayrul moo gën ci weer yi di weeru ramadaan muy weer woo xam ne bu mat a waajal la bu mat a fonk la ndax ci la sunu borom wàccee arxuraan yi nga xam ne mooy mat li téere yu ko jiitoon yëpp ca sunu borom bayu ci dara liñ soxla lu ñu soxla lépp mu ngi ci biir kon nag weer wu a waajal la te yàlla bu ko yàlla dogalee ajuma bi bis delsee mën naa amu bokk ci koor gi bu ko doonul tam bis na topp rek kon nag nan koy waajal bu baax a baax ndax ki nga xam ne moom lañ yaakaar te yëgal seen xanom xadim ku ne xam ne digganteem weeru koor ku ne xam ne ni mu ko fonke woon ku ne xam ne ni mu ko daa waajale ñu ko xam ñépp wax na ne bu bu weeru mataa toll fii musta am ngant ndax musta am soxla ci li fay ñëw waaye bu see toll fii rek ci la ak tabam daa gën a yokk daawut gàntu kenn ba bañ ñu ko xamal ñëpp weeru masaa toll fii boo amee si it da koy denc sax ba waxtu toll fii loo ko laaj mu ne xaar danga koy waajale gan ko te di waaj ñëw kon nag ñun ñu ko yaakaar nan fonk weer wi te waajal ko ndax weer la woo xam ne bu agsee bunti àjjana yëpp dañ koy ubbi bunti sawara yëpp dañ koy tëj saytaane dañ koy jëng ba du mën a jóge fa mu toog weer la woo xam ne sunu borom da ciy way wàcce ay may yu bari ci mboolem ñuy woor lu baax loo ci def da koy fula ful ful ba ket du am fu mu yem boo defee lu benn ñu ba fay lu fukk waaye bu dee benn koor nag loo ci def lu baax gis na ko fal juróom-ñaar fukki yoon bala lu kopp kon nag bu dikkee nañuy góorgóorlu ci def ci lu nu man lu baax ak lu rafet suñ ciy tuubal sunu borom bu baax tuub bu moo mboolem bàkkaar yi ne amoon te fexe ba biir weeru koor duñ ci def benn lu nuroog lu bakkan soxla duñ ci def benn caaxaan jamono yëpp lañ ko teree waaye ci raw nag kon nag bu agsee nañ góorgóorlu bu baax a baax ci sellal xol yi sellal xel yi te góorgóor ci jàmm yàlla bu baax a baax te fonk wax la laa ilaha illah ci weeru koor di ci tikka tudd yàlla lu am solo la ak di ci jéglu sa borom lu baree bari ak di ci ñaan sunu borom foo toll mu dugal la àjjana di ñaan sunu borom mu musal la ci sawara loolu lépp bëggeen ko def ci weeru koor tey fexe ba mboolem rëcc yi nga xam ne yàqu mooy yàqu koor buñ ci ak ñu koy moytu fexe suñ cër yépp lépp lu ñuy tere suñ cër yi bañ bañ ci bañ ci bañ koo laal fenn te bu weeru koor dikkee ñu fonk nit ñi sax fonk nañ jàkka ak juma waaye bu weeru koor te bu weeru koor dana ko fonk loolu ci njëlbeen waaye bu a bàyyi seen loxo waaye bu weeru koor dikkee lu waaye fonkoon jàkka ak julli mbooloo yokk lu waaye fonkoon julli ajuma na yokk ndax ci la yiw yi ëppee ci la yool yi weeru koor loolu bu agsee man di dimbali nit ñi nga di ko def mboole ñi ñi amul dara ñu ñàkk ñi ak ñu néew doole ñi ba xam ne mënuñoo jug di wuti di leen dimbale di leen lere yiwu bare bare mi ci ak say jege ñaale nga leen di jog di leen di leen def loo man ci dimbale leen même sam koor kenn waru ci naqar de am na xam ne buñ wooree dañuy mel ne dañuy bari mer loo leen wax ñu mer te fekk weeru koor da war a neex dara lool di togg togg yu bari waaye di dimbalee nit ñi amul lu ñu togg itam lu ñuy lu ñuy ndogoo muy foqaraayu ak masaakin yi nga xam ne yàlla def na amuñu kattan ñooñu di leen dimbale ci weeru koor jiwu baree baree ci ak lépp lu baax loo xam ne lu rafet la boo ko mënee ci weeru koor nga di ko def waaye lépp loo xam ne lu ñaaw la wala lu bon la jamono yëpp lan ko tere waaye weeru koor la la rawe na ndax moom it ni nga xam ne noonu la ñuy fule boo defee lu baax ci weeru koor boo defee saxaan bi noonu lañ koy fëlee ci ay bakkaar kon nag nañu tuub bu baax ci fonk weer weer bu baax te di ko waajal bu baax ci mboolem jàmm yàlla yi ci jàng axwaan jàng xasida di sikkar di sabal di julli ji wax ci jàkka yi dem ci jumaa yi dem ci naafile yi yëpp ñu bañ koo woyofal te bu weer wi dikkee ñu fexe ba laabal suñu xol yi génne ci iñaan ak mbañeel di iñaane iñaan iñaane nit dara wala bañ nit wala ngay rëy yooyu yëpp doo nga fexe bu weeru koor di ñu tàqali ko moom ak xuj bu yëg sa bopp ak naafeq yooyu yëpp ay jikkalu yoo xam ne koor da ko war a dindi ci nit kon nag nañ fexe ba bu ko di baa koor ñu laawal suñu bopp ci yooyu yëpp bàyyi jëw bàyyi rambaaj bàyyi lekk riba bàyyi njaaloo bàyyi nekk ci ak neen lu amul njariñ ak xuloo yooyu yëpp nañ góor góorlu balaa weeru kawee tàmbali ñu génne ko suñu bag suñu bopp wurta nekk ñun waaye nag rawatina waxtu yu ñu toll balaa weeree ak si ñu ñu génne ci képp koo xam ne sab xol set na nga laabal ko ci yi ñuy wax yëpp nga weer weer wu korom egg sa pay àjjana lay doon kon nag nañ ci góor góorgóorlu baax a baax te fonk ko te lu ci lu baax ñu ko ciy def te mu lu nu li ñuy tere lépp ñu ko cee moytu ba ñoo jeexal xam ngeen ni <clears throat> fan yi xew-xew yi xam ci àdduna bari na ci tiital lool muy feebar bi ñu yox corona mu nekk ci àdduna bi àdduna sépp bari ay jeexal yu mu def def ci nit ñi lool ndax ñëpp ñi tëj na leen ba mu ñoo génn ña daa liggéey mënatuñu liggéey kenn mënut a fenn loolu nag war nañ cee jàngat ñun ñi nga xam ne ay jullit leen bu baax a baax donte nag war nañoo sant bu baax itam nag ndax xew-xew bi li muy bari bari bari li ci laal réew jullit bariwut ndax ñiy wax ñëpp wax na ne feebar bu dee juróom-ñeent fukki bu dee téeméer juróom-ñeent fukki yëpp Europe ak Amérique la nekk fukki yees la ñëpp bokk ci fukki yee ci des tam ci la Asie gi yëpp bokk li dal juróom jullit yi bariwut senegal kon nag julli naan sant bu baax xanaa li ci métti rek mooy mu demee ban <coughs> dëkk bi gën ci gëddi dëkk yi muy makkatal mu kanam dañ leen tëj kenn mënu faa dugg kenn mënut a génn ñu ngi ragal ne tey ren aj du am naafil yéen daa def foofa ak taxaw yëpp mel ñu ngi ragal du am madinatul munawwara noonu moom itam ñu tëj ko kenn du fa dugg kenn du fa génn baytul muqaddas moom itam ñu tëj ko kenn du fa dugg kenn du fa génn ah kon nag juri ji war na tiit nag ci dellowaat seen bopp ca tuub tuubaat bu baax a baax te xam na yàlla kat moo waxoon ne saara fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydi naas lii lii dal suñ loxo génn ci kon nag nan tuubaat bu baax fàttali waxaat suñu borom delluwaat suñu bopp ci yàlla ku ne xam nga sa bopp nga jéem a tuub bàkkaar yi nga newoon te bañ koo def loo xam ne événement rek boo xam ne ku ne toog sa télé di comment du commenter ñi ci faatoog xaw-xaw bi rek te bañ a tuub dellu sa borom loolu ab jullit wuru ko def buñ tollee ci xat-xat yu mel nii ñëpp dañoo war a delluwaat seen bopp tuub xam ne ñoo def lu nu wërut waaye suñu borom moom latiifun bi ibaadihi raufun rahim ku am yërmande la ku am yeewante ñun la bu nu tegee natt yu mel nii rek xamal ne ñun ñii ñoo ko teg suñu bopp te lu ñu ciy génne nag ñu delluwaat suñu bopp su suñu borom tuubaat xool yi nga xam ne mooy ndigalam yéen yi mu ñu nekk ca yi mu tere woon can can quoi def ñu génn ca mboolem yi nga xam ne mooy waral musiba yi di wàcc xam nañ ko te moo feroon feesoon dellu ci àdduna si ñu génn ci te delloo suñu bopp ci yàlla ñu ngi soññu baax a baax tam nit ñi nga xam ne mën nañ ca am nañ ñu dimbali ñu ñàkk ñi ndax ku ne xam na ne fi mu ne ñi amoon dara sax lañ yoroon mi ngi bëgg a jeex ndax koo xam ne am nga weer nangam boo xam ne yëngutootoo bu yàlla dimbali la nga yoroon sax dana jeex moom laa ñi nga xam ne naka jëkk dandaa dimb dandaa moslu kon nag <clears throat> képp koo xam ne yàlla dimbali na nga am kattan am loo mën a dimbali nit ñi na na def si loo man ci dimbali ci dimbali te xam ne loo ci def boo demee ëllëg na ko fekk ndax yàlla maa taqaddama leen min min xëy sin tajidu indallahi huwa xayran wa ahsana ajran yàlla wax na ci tagg ne mboolem ñuy joxe seen alal ci ci waxtu yu mel nii allasi yunfiquna amwaaluhum bi leyli wa nahaari sirran wa alaaniyatan fa lahumu ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun wa anfiqu mimmaa razaqnaakum min qabli an yaatiya ahadakumul mawt moom itam loolu foofu la suñu borom yëpp la ci digle ñuy dimbalee man sa la si yoxrallah xarlan asan fu yolaayi fooloo adafan kasira yooyu yëpp suñu borom ay digleel koo xam ne képp ko nangaa leb lebal sa borom te leble suñu boroom mooy fekk ki nga xam ne ñàkk na mënut rawatina ñi nga xam ne ay fuqara miskin sax moo taneen miskin mooy ki nga xam ne moom mën naa dugal dem fu ne laaj boppam waaye fuqara nag moo bari ci réew mi daanaka ñëpp moom lan ki xam ne amul lu dund bu ko dund bu atam am na ñoo xam ne mënuñoo dem ci mënuñoo dem ci nit ñi laaj ñi nga xam ne xam xàmmee na ñooñu rek di leen dimbale yiwu rëy rëy mang ca nan xam ne ahmaalul barri wal ihsaani imaayatun wa wiqaaun wa xilaajun wa shifaaun def lu baax jëme nit ñi dalay aar ba dara du agsi yow dana la fegal lu bëggoon a ñëw itam waaye loola dalwaan itam dana la ko faj dana la saafara kon nag nañuy dimbale bu baax a baax lu man yoon wax na giñ naa ne maa ngi ci ñett ñii ne dama leen bu wax nañ ko wattu baax maa naxasa maalu abdin min sadaqatin saraxe du tax ñàkk àll wala sulima abdun maslama fa sabara alayha ila saadahu llahu xajtan nit duñ la tooñ mukk nga muñ ko muñ ko rafet ndara bu tooñ googee yow tedd nga nga jëri ak ako kawe waaye wala fataha abdun baabu masala ila fataha allahu baabu maxfira wax na ne itam bu butub koy laaj ku képp koo xam ne ku laaj bu dikkee ku ubbi ko sa bunt sunu sunu borom nee na buntu njëggal dana la ko ubbilee itam aqulu qawli hada wa astafirullah li wa lakum wa li saa'iri muslimin allahuma ya aalima al asraari ya mujiba daawaati ya malika al mulk ya allahu ya rabbana anta al muiitu bi kulli umurina wal alimu bi kulli suina faltuf bina min xawaadisi min xawaadisi samaani waxfisna fi kulli makaanin wa samaan waxfina al umuma wal ahsaan wañ max lana xayra haasa al yowm wa xayra ma fiiha wa xayra ma adbara